ñu ngi dellu rekk ci daaraay démb yi nga xam ne ñoo jur daaraay tay yi yegg nañ ci daaraay tay yooyu daaraay muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ca caaroy di daaraay tayu mawlaaya sëriñ abbas sàlla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 إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافح وامسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته رحمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور صدق الله Muhammad ci ayat yu am solo yi ñu jangal ak ci njangan wi rafet wi nga ko jàngee yal na yàlla alquran ci sa kaw wacce ko ci say wajur wacce ko ci serign dara bi nga ne moo ba nga man ayat yu rafet yi def ko ci sa yàlla sax ci mbaaxam yàlla na ci dëgg dugalaale si ñun ñëpp xaasal ci borom kër gi suñu waajur wu tedd wa Seydi Mouhamadul Amin Niass mu mel ni aayaat yi mu doon firi mu ya ayuha alladina amanu ida qumtumu ila salaati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi yàlla nga ko wàccee ci xaswatul muraysia mooy xare bi nga xam ne saydatuna Aïcha caqam bi dafa réeroon saxaaba yi dem di ko ko seetali biñ koy seeti nag amee wuñu ndox yàlla nag wàccee waale ci tudd njàpp te waxoon na ko ndax njàpp moom fi la ko yonent bi fekk aadama dafa daan jàpp eh, yonentu yàlla ibrahima dafa daan jàpp sayiduna noox ba ci sayiduna isa kenn ku ci nekk boo daan julli bala ngaa julli da jàpp waaye tiim nag lañ amutoon tiim moom ñun xeetu sayiduna muhammad rek ñoo ko am mu ne leen nag comme da ngeen a tukki du ko wërali ab caqam te foofu ngeen nekk amu leen fa ndox man yàlla may naa leen bu ngeen amul ndox ngeen tiim ci la Usaydu ne daal waa kër Aboubacar ñii ku leen xëpp barke amul te mën a lii nekkul seen njëlbeenu barke ci seen barke ci la yàlla mayee xeetu yonent bi yépp am ak ruxsa muy ak yolombal ci boo amul njàpp mbaa nga boo amul ndox mbaa am ndox te mënoo koo jëfandikoo nga tiim xam nga loolu teraanga ju rëy la lépp ñu ngi ko jëlee ci kër Seydina Aboubacar tiim nag dana ko wax waaye balaa yegg si ci tiim moomu ñu ngi wax njàpp ci aaya ji boo jëlee alwudu baat bi mi ngi xaree ci maanaam mustaqun min alwadaati ji firi leer lu ko waral jàppkat yépp fi ci àdduna koo ci gis xar-xaramam day leer leer jàpp am na leer gu muy def ci xar-xaram goo xam ne diw mënu koo def bu yowmal qiyaamee tamit ni ñuy xàmmee xeetu sayduna muhammad ci yeneen xeet yi sallallahu alayhi wa mooy seen xar-xaram ba day leer nàññi seen tànk ya am ay leer nàññi ñu nekk xurul muhajjiliin loolu ci la ñu xàmmee ne yow de maa yow bokk xeet yow de maa yow bokk xeet te loolu ñu ngi ko jëlee ci jeexitulu njàpp njàpp nag boroom xam-xam yi wutee nañ ci ñii ne taabud la ñii ne muallal la taabud ci xam-xamu usul mooy lu la sa borom sant ne def ko te xamoo ne el la moo tax mu sant la ko te yàlla nag dañ ko topp ci luñ xam dañ ko topp ci luñ xamut moo àllal nag mooy loo xam ne dafa la ko sant ba pare ba mu la ko santee nga xam el la bi tax mu sant la ko boroom xam-xam yi def ñaari xaaj ñii ne njàpp taabud la li tax yàlla santuñu ko xamuñu yàlla ba ñii ne déeréet moo àllal la li tax yàlla santuñu ko xam nañ ko loolu la imaamu Maalik gëm lu tax yàlla sant ñu ko mu ne dafa ëmb ay njëriñu àdduna ëmb tamit ay njëriñu àllaaxira am tamit ci sabab bu mu soqee ko mu ne sabab bi njàpp soqee ko mooy suñ maam aadama suñu borom moo ko tere woon ne ko waxuma la lekk garab gi mais bu ko jegee yaag sa soxna wala taqraba hadihi shajarata fa takuna min a xaalimiin mu dëgg tànkam ya pour dem wara wit garab ga ak soxnam tank yoyé mu doxé won suñ borom sant ko ne ko dé ko raxas bala nga ma jaamooti ci julli raxasal sa tank ya ba mu doxé ba yegg ci garab ga dafa jël loxom dugal ko ci bir xob yi pour wara dag pour wara wit loxo yoyé mu mo waral ni sant ko raxas loxo bam ko dogé ba paré da ko avant mu koy lekk moo waral sorox ba mu paree mu mos ko moo waral galax bëtam yu sell yam ko xoolee xoon te bët sax ci xarxaram moo waral sëlmu waaye tamit boppam bu tedd booba mu tiimal garab gi tiimoon ak xob ya moo waral masaa bopp ba mu koy dog bur wi boobu amoon nopp yi dégg ko kuy dog na meññent ci fu am xob danga dégg ay bur wi moo waral koro koro nopp kon ñu ne njàpp mu àllal la fii la soqee ko yonent bi nag dig na ci yool bu rëy mu ne bàkkaar boo def diggante njàpp la ak morom ma boo raxasee sa cër yi mu wadd ànd ak ndox ma boo defee bàkkaar ci loxo ci téye loo warul téye boo raxasee sa loxo rek bàkkaar bi nga defoon ci loxo lépp wadd ànd ak ndox ma nga sorox loo waxoon lu waxuwul di nga tuuree ndox ma mu ànd ak moom nga sorox maanaam nga nga soroxndiku noona ca ca ca ca ca ca bakkan ba loo xeeñtuwoon lu xeeñtuwut wadda ànd ak ndox ma nga sëlmu loo xooloon lu xooluwut mu ànd ak ndox ma nga raxas loxo ba noona masaa bopp ba loo yenu woon waaye tamit raxas tànk ya loo doxoon dëgg-dëgg yàlla yéen nañu ñu yéen nañu ñu payoor yéen nañu ñu yërmande lool moo taxoon gaa yi bu njàpp tëgut sax dañ ko daan beesal dañ daan bëgg loolu ba waxtu wu jot donte tojlewul dañuy jàpp bu ñu jàppalee tusubaar tàkkusaan ñëw tojul ñu jàppaat pour ñu am payoor googa bu timis jotee tojul ñu def loola ñu jàppaat bu gexe ñëwee tojul ñu jàppaat loolu la yonent bi dëkkee woon yonent bi li saxaba yi miinoon ci moom sallallahu alayhi wa waxtu wu jot da ko doon jàppal ñaari yoon lañ gis mu boole benn njàpp ci ay julli benn bi mooy xaswatul xudaybiya benn njàpp julli na ci lu mat julli yu limu ñaari julli ñett fatxu makkata benn njàpp julli na ci juróomi julli yépp sayduna omar ne ko yow de def nga loo xam ne xamuñ ko yoon ci yow fatxu makka gaa ngi nii sa njàppal suba ci nga suba timis gexe lan moo ko waral yonantu bi ne ko amdan faaltu maa ko def ci tay dama leen jàngal wane ne maanaam njàpp bu tojut mën nga cee continuer julli njàpp bu tojul mën nga koo beesal boo beesalee njàpp fekk tojul dañ lay may fukki yiw saa yoo xamee ne yaa ngi jàpp te sa njàpp tojul yow moom am nga fukki yiw fukki yiw yàlla nag jërul xeeb moo tax kon beesal njàpp lu am a am maanaam doole la waaye tamit njëriñal àllaaxira la cër yi ñu yàlla raxasloo dafa cee namm bu yowmal qiyaamee mu décoré ñu ci moo la sant nga raxas loxo bu yowmal qiyaamee yonent bi nee na fu sa njàpp li yem rek foofu lay say gànjar yi yem muy asaawira min zahabin lépp mu takkal la ko ci ay gànjar or jamaa na mu gën a rafetee góor ñaak jigéen yi ñépp ba fi sa njàppuwaay bi yem muy raxas loxo su fekkee da raxas sa xar-xaram bi ci njàpp lim lay mayee dafay nëtëxal sa xarxaram bi bu ëllëgee nga mën a gis sa borom nga bokk ci wujuhun yawma idin naadiratun ila rabbiha naadira muy raxas xarxaram loolu lay jural ëllëg nga masaa bopp mu jox la maanaam taaj muy mbaxanaay buur yu gudd yooyu nga xam ne xamut fii sax ci àdduna su xam ne ku liggéeyal réew mi am na feet goo xam ne bu jotee muy indépendance dañ lay décorer yow mi doon jàpp nag bu yowmal xiyaamee yàlla lay décorer sax maanaam solal la mbaxana solo la mbaxanaam or mbaxanaam jamaa moo xam ne taar ba kenn mënu koo misaal waaye nag sa tànk yii nga xam ne moom nga doxe woon jëm ca njàpp la boo liggéey yàlla teralee ko nga doxe ko jëm ca kawsar pour mën caa naan boo liggéey mu teralee la ko tamit sa tànk yi mu weexal ko yow mu bekk ci xeetu yonantu bi sa bi weex nga boole lu ñu tuddee ñu yore fas xam nañ ko pell ak ndóobu ñaar yooyu muy muy xurul muhajjiliin ñaar yooyu la ñuy xàmmee xeet wi kon yëpp ay darajaat la yu yàlla defal nit ki ci njàpp njàpp nag boo ko seetee aaya ji yëpp ñeenti ponk la ci tudd tudd la ci raxas loxo tudd na ci sëlmu muy raxas xar tudd na ci masaa bopp tudd na ci raxas tànk ñeenti yi rek moo nekk ci aaya ji ci la Abu Hanifa dëgg ne farataay njàpp ñeent rekk la Abu Hanifa mu ne farataay njàpp bu ñu la ko laajee ci ngiram ni ñeent rek la sëlmu raxas loxo ba ci concu masaa bopp raxas tànk moom nag masaa bopp mu ne boo xaajoon sa bopp bi ñeenti xaaj boo xaa boo masaayee benn xaaj ba rek doy na jarul ngay masaa lépp moom noonu la ko déggee boo jëlee imaamu Shaafi'i yu farataay njàpp ci ngiram juróom benn la ñaar ñeent yi mantuuqul quraan la yeneen ñaar ya mafhum la ñeent yi mooy ñeent yi ma tudd noonu seen bu raxas loxo masaa bopp raxas tànk mu déggee ca ñaar nag moom ci laayo ji mooy yéede mu ñëw juróomeel ko beneen bi mooy tartiib ndax yàlla da koo toftale donte waaw sax du tegtale toftaloo nañ toftaloo waxee waaye yépp da koo toftale faxsiloo wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi amsahu bi ruusikum ba laayo ba laayo ya jeex noonu la ko indee yépp su ko defee moom moo tax mu ne kon farataay njàpp juróom-benn la buy ci buy ci nag suñ ngir mii ci imaamu Malik juróom-ñaar la ñetti mooy ma mafóomul Qur'an la ñeent yi Qur'an la ñeent yi mooy yi ma tudd sëlmu raxas loxo masaa bopp raxas tànk ñett ya Malik déggee ca ne bu ci njëkk mooy yéene iza qumtumu a salaati rek yéene tàbbi na foofa waaye tamit Malik mu ne tamit dañ laa wax ne raxasal sëlmu la wax nga raxas faxsiloo wujuhakum raxas leen raxas mënoo ko def te ragguloo waxul nga sotti ndox mi rek kon dal gu ñëw na raggu ñëw na bu ñetteel bi ci Maalik ci mantuux bi mu ne tamit mooy njàpp li nga nga nga nga def ko maanaam euh, mu waalaat méngale ko def ko maanaam al fawru li ñu tuddee fawru ci fuqaaw yi mooy njàpp lépp nga def ko benn yoon dañu njàpp ba ci kanam am ku la woo nga dagg jàpp la téye sa téléphone bi di ko wuyu wala jàpp ba ci kanam dagg ko dem doxi soxla ñëwaat bëgg a sofaat déedéet baat bi rek moo lay tekkee ne nanguwul loolu ndax kenn ku ne ku ci ñun boo jàppee ci dara am ku la woo loo koy wax ne ko may ma tuuti damaa jàpp waaye comme yaa ngi jàpp nag dangaa ngaa jàpp waratoo caa def dara bul bul wuyu moo tax maam laa jàpp laa gis gis naa ki téere mu tuddee mu fi dul anaam mu ne kuy jàpp ku ne sampal nañu la fatoo yu wurus nga toog ci waxuma la dagg mais boo waxee rek ñu ne la yaa abdallahi uskut randal seesu wurus ba remplacé ko bu xaalis nga waxaat ñu ne la yaa abdallahi uskut jële fa seesu xaalis ba boo waxaatee yoonu ñetteel wa nag au lieu que yaa abdallah mais yaa abdu wallaahi lañ lay wax yow noonab yàlla bi noppi moo tax kon nag kuy wax bay jàpp na bàyyi lam doon wax lépp te fexee fexee maanaam jàpp lu am a am solo la te taxaw ci kon jàpp nga ne lu rëy a ngi ci danañu fanqal mbooleem bàkkaar yu ndaw ya ñu def ci suñu cër yi waxtu woo ko jàppee rek day root ànd ak ndox ma wala mu root ànd ak mujj ak toq ak ndox ma noonu la ko sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama maanaam jàngalee waaye ngir yi tamit nii lañ ko déggee malik juróom-ñaari farata la ko def shafii yu juróom benn abu xanifa ñeent moo tax bu la nit laajatee farataay njàpp ñaata la ne ko ci man ngir bu la waxee ba mu leer nag nga door a xam ne ko buy ci ngiru nangam nangam ak nangam xam ko nag lu lu lu lu mënta ñàkk la waaye tey am nañ fi ñoo xam ne ay intellect ay intellectuel lañ boo leen laajoon réew mu ne xam nañ seen civilisation waaye boo leen laajoon farataay njàpp ñu ne 30 boo leen laajoon sangub jana ba ñu ne la 20 farataay xamuñ ci dara dañoo réeree seen diine dara lañ ci xamut waaye ni ñu xamee seen adduna. amul dara dara dara dara lu ñu réeree ci àdduna waaye diine xamuñ ca dara te njàpp ci gën a yomb boo ko réeree xaw ma looy xamati imaamul ku tàng la nee na boo jàppoon ba pare ñu la ne la waaw njàpp lii nga jàppoon lu cay farata ak lu ciy sunna ak lu cay luñ sopp mënoo koo farañ fànce mu ne même bu njàpp la baaxee yàqu na ndax ngaa war a xam bala ngaa def waaye borom xam-xam yu bëri xantuñ caag moom dañ ne ko nag su fekkee ngaa jëlee njàpp li ci melaw boroom xam-xam jàpp nga xool na muy jàppee nga nga roy ko ca donte xàmmeewoo farata yaag sunna ya ak mustahabaat ya jàpp la tamit baax na waaye nag ala kulli xaal xam ko daal moo gën bala ngaa jëf ndax ni ngay sonne ci sa téléphone bi mën a dugal crédit mën a envoyé xam bonus ya buñ la dugalee orange moo ne nga mën koo retiré genn wàllaati genn wàlla boo ko defoon xam farataay njàpp kon yooyu yëpp ñu sonn ci moo tax sama borom ne yaa ayyuhal lazina eh yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran ida qumtumoo su ngeen nammee jug ila salaati jëm ci julli fekk yéen yéen a ngi togle faxsiloo na ngeen raxas wujuhakum seen cëlmaay yi cëlmaay nag lu yaatu la li ko doree fi nit baaxoo sax karaw ba ci suufu yaxi sikkijam la ko doree yaatuwaay ba mooy ñaari yemuwaayu nopp yi yépp raxas ko ba raxasaali cukku cukku bakkan bi waaye tamit wa na ngeen raxas aydiyakum seen loxo yi ilal marafiqi ànd ak ànd ca ak ak conc ya ñu ne ilaa bi maanaam maa ñeen na ngeen déedéet ilaa moom ma nga fam ne woon waaye la muy tekki lépp mooy dugalaaleel conc yi ndax ilaa linti lil intihaa lay takkale ci xam-xamu naxu kon nag wa aydiyakum na ngeen raxas seen loxo yi ilal marafiqi ànd ak conc ya ilal marafiqi ba ca conc ya wamsahu na ngeen masaa bi ruusikum seen bopp yi baa gi baawu ilsaq la maanaam jëlal sa loxo yi nga masaaxee ko sa bopp bi bu ko defee waaye du ba baagoo xam ne baawut baadiya la noonu la ko imaamu abu xanifa déggee moo tax mu ne baawu baadiya la sa loxo sa sa bopp bi boo ko xaajoon ñeenti xaaj ñeenteel ba boo ko masaaxee doy na imaam shafii tamit loolu la gëm mu ne même ceti karaw bu tuuti ci sa nopp ci sa bopp bi boo ko masaaxee doy na maalik ne déene baagu baawu ilsaq la kon nag boobam sa woo na ngeen masaaxee bi róosikum seen bopp yi wa ba tey na ngeen raxas arjulakum seen tànk gi da koo ataf ci ay aydiyakum tànk dañ koy raxas waaye kenn du ko masaa ibnu abbas moom nag moo beddee ko ci saxaba yi ne tànk dañ koy masaa moo tax boo ne njàpp mu ne xaslataani masxataani mu ne njàpp ñaari raxas la ak ñaari masaa ñaari raxas la mu ne mooy loxo ba ak xarxaram ba ñaari masaa ya mooy bopp ba ak tànk bi loolu la ibnu abbas gëm mais saxaba yi ànduñ ceeg moom motax bo jele ci jang jang alquran qiraatu saba yeb jurom ben yeb wa arjulukum lañ jang kenn rek mo jang wa arjulukum jël arjulukum ataf ko ci manam biru usikum ne moko gëna gën dédét mé ñang ko ataf ca wa aydiyakum kon loxo tank dañ ko wara raxas té loolu timi moy amalu sahaba sahaba yi loolu lañ doon pratiquer musu ñoo massa tank mé dañ ko doon raxas kon wa arjulukum na ngeen raxas maanaam tànk yi ilal kaabayni ànd ak ñaari dajoor ya na dajoor yi duggaale wala ilal kaabayni ba ca dajoor ya ñaar yëpp baax na kon njàpp ngoog ñeenti yi rek la tudd sëlmu raxas loxo masaa bopp raxas tànk moo ci la imaamu Malik dëggee ne raxas loxo bii mooy farata mooy li ko doree fii ba ci conc li waaye raxas loxo bii nga tàmbalee ci imaamu Malik sunna la waaye buy ci mazhabu imaamu euh, imaamu shafii yu moom dafa ne raxas loxo bi mooy farata ci njàpp moom loolu loolu la gëm buñ demee ca tiim nag fii moom mooy mooy mooy sunna ci moom dafa safaanoog Malik fi Malik ne mooy farata moom mu ne foofaay sunna ca tiim fi Malik ne mooy sunna moom mu ne mooy farata ci ci ci njàpp la kon njàpp ngoog nañ ci sonn di ko def fexé ba lépp tooy njàpp nag bu la neexee njàppal njàppal benn benn man na bu la neexee nga jàpp njàppal ñaar ñaar man na bu la neexee nga jàpp njàppal ñett ñett yonent bi def na def na yépp pour jàngale jàpp na njàppal benn benn mu ne njàppal benn benn mooy njàppal yonent yi di njàppal borom xam-xam yi ko xamul xam-xam boo jàppee njàppal benn benn mu des ko xam xam-xam rek moo mën a jàpp njàppal benn benn waaye boo amee xam-xam da nga ci bàyyi xel ne kat lépp a war a tooy njàppal ñaar ñaar moo ñu diggu doomu ñi njàppal ñett ñett nag mooy ñoo xam ne xamuñu te moo gën a limtu timit ndax benn cër lu nit lekk-lekk ndigg benn cër boo ko raxasee ñett yoon moo war a tooy moo tax kon ñett yëpp yonent bi def na ko njàpp na jàppal benn benn njàpp na njàppal ñaar ñaar jàpp na njàppal ñett ñett ñett yëpp boo ci def baax na kon njàpp ngoog lii la ci tudd waaye nag njàpp duwut ne heure bu ne lañ koy def moom may ñu ngànta bi gaa yi wëri caqat sayyidatuna Aïcha ba mu ne su ngeen yoree janaba te janaba mi ngi soqeekoo ci ñeent mooy boo jonjoo ak soxna yi jonjoo gi am na mën nañu génn na génnul yépp sa ngaay war na ca boo sangoon ba pare nag ñëw mën na mi dóor a génn dootoo sangoote da ngay raxas sa kanam rek sangu mu njëkk ma yóbbu yóbbuwaale na ko muy benn ñaareel bi boo yore woon dereetu reegal yow jigéen gi sa deret dagg da war a sangu soo yoree deretu gësin mu dog da war a sangu yow góor gi may déglu mbaa jigéen sa mën na yu génn na ci anam ak wér génn na ci anam ak bànneex ci gi yewu mba ci nelaw demal nga sang yaangi xol image yo xamne ne yaangi yewu dara dalul la ba sa mën ñu genn demal nga sang wala nga tëdd ni ci nelaw mu melni dafa am koy jonjoog ba sa mën ñu mu genn demal nga sang kon sangu yi ma tudd mo koy waral yi mo koy waral waye yi di waral yépp bu ngant taxawé muy ngant ga mooy amon ndox carrément wala ah kay am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo ngir ragal sa sug feebar dolleeku feebar yéex a wér bàyyi fa ndox ma nga tiim aj janaba ji te julli xam nga julli kon foor na yéeneel nga aj te tiim te julli comme waxtu wi teew na muy benn ñaareel bi tamit su fekkee da nekk ci tukki amoo ndox tiimal donte sax amewuloo janaba tiimal nga julli bi ci tegu tamit soo bàyyeekoo ca wanag wa amuloon ndox moo jëfandikoo tamit tiimal nga julli kon tiima ngoog li koy waral ci Maalik ñàkk ndox walla am ndox te mënoo koo jëfandikoo am ndox te mënoo koo jëfandikoo mooy am nga ndox mi waaye boo ko jëfandikoo yee jële ko susug feebar mbaa dolleeku feebar mbaa yéex a wér Maalik nee na bàyyil ndox mi ta nga dem tiim tiim nag bu nekkee sa farata dara daru ko loolu tamit ñu santee ko yàlla santee ko yonent bi ci may gim ñu ko may te ñun rek ñu am ko waaye xeet ya ku ci waxtu wi taxaw amuloo ndox moo jàppee danga koy aj bis boo demee ba am ndox moo jàppee nga nga jàpp fay sa waxtu julli yi waaye nag ñun déedéet bu jotee rek tiimal nga julli bu fekkee ne nag ngànt amul ngay tiim tiim tuddul ko lim tuddatul tiim lim tudd mooy tiimal sa bopp rek xamoo ca benn yoon ndox maa ngi nii nga bëgg a yàkkamti rek nekkoo ci dara topp sa bakkane damay tiim loo ko jëlee dara da tilimal sa bopp mag ñi seen mën a jàngale benn waa ñëw ci sëriñ fàllu ne ko damay laaj tiim ak njàpp bu ci bu ci gën mu génnee ñaari junni ne ko jàppal mu tee mu jàpp mu génnee waat ñaari junni ne ko tiimal tiimal ñaari junni yi ne waaye bu ko jàpp ñëw na ko ñaari junne bu la ci gën a mu ne ko bi ma jàpp ne moo ma gënal bi ma tiim ndax bii maa ngi ko tiim ni mais mënu ma ko dugal sama lox sama poos kon mag ci sa ci ci li laaj nañ lay tontoo lañ lay jàngale kon nag njàpp gën njàpp gën tiim su fekkee ngànt amul waaye bu ngànt amee nag lay sa ngànt rek loolaa gën ci yow ndax secours la waaye bala ngaa monter sa secours bi na fekk na nga crevé waaye crevé loolu damay monter secours foo ko teg kon loolu jar naa bàyyi xel moom lay wax si nii moo tax mu ne wa in kuntum bu ngeen nekkee junuban di yore janaba fatahharu na ngeen sangu wa in kuntum bu ngeen nekkee marda di way feebar aw xalaa safarin baa ngeen nekk di way tukki na bi maanaa aw jaa walla baxee ko ahadun kenn minkum ci yéen minal xaayiti ca wanag wa minal xaayiti ci dem joor aw laamastum wala ngeen jonjoog nisaa jigéen ña falam tajidoo te amu leen maa an ndox fa tayammamu na ngeen tiim lu ñuy tiimee mu ne saidan na ngeen tiim ci pàkk tayiban bu teey mu ñuy tiimee mu ne fam safoo na ngeen masaa maanaam bi wujuhikum seen cëlmaa yi wa ba tey na ngeen masaa aydiyakum seen loxo yi minhu ca lu dóorin ba dóor leen ko ca maa yurid namut laahu yàlla jaxala ngir def aleykum ci yéen min harajin ci benn tiis tiis walakin li fi nekk du dafa namm li yutahirakum ngir na laabal leen ci bàkkaar laabal leen ci tilim tilim wala yuti ma ngir na matal ni'matahu xéewalam alaykum ci yéen la'allakum mbastale yéen tashkuruna ngeen sant yàlla ci xéewal yooyu ngeen defal kon gis nga mu ne boo yoree janaba yow mi may déglu yow jigéen gi sa reega la dog demal nga sangu ji waxtu lañ wax nga war koo julli dañ lay nattalee laab na fek nga mën sangu man fa jot ab kon ci lay tusubaar jay jey wara war ci lay takusan jey wara war waaye su fekkee fim mu bo boo di sangu ji ba pare do mën jot ab rakkaa jant bi so tusubaar ak takusan yëpp wacc nañ la waxtu wi sa reegal ñëwee timit boo ko hu ton lu jara bax mu nekk sew-sew yaang jot ab rek shariha diine diine yaakaar ju yaatu la day wax ne bu la lii dabutoon léegi tey nga jug julli waaye boo toppee sa bakkan sa reegal gi daggul yaa ngi ko yore julli wuloo julli wuloo ba jant bi so sa reegal door a ñëw bis boo demee ba set ba sangu li ngay njëkk a def demal lijjanti sa tusubaar ja ak sa tàkkusaan ja ndax ci ci sax sàggan la la faatee waaye su fekkee ba reegal gi ñëw nag wax dëgg yàlla mënoon nga fee julli ñeenti rakkaxay tusubaar man fee dab benn rakkaxab tàkkusaan boo demee kat bu reegal gi dagg jot ñëwee ba ba nga dagg sangu dootu julli dara lislaam day wax ne ba la lii dabutoon léegi tey nga jug julli waaye boo demee nag mënoo caa dabati dara wala benn ba rek nga mën a dab kon benn ba rek ngay fay su fekkoon tey ñeenti rakka dong nga ci mën a julli kon day wax ne tàkkusaan ci waxtoom nga ko defee bu demee boo set dama lijjanti ci tusubaar ja nga fay ko kon yéen jigéen ñi bu leen toogati naan damaa yore reegal duma seetal waxtu wi nga ko bi bi la régal bi dikkalee ak fi waxtu wi jeexee noo def noo def ak moom feeg yaa ngi cay mën a jot ab doo ko fay feeg mënatoo jotati rakka nag da ngaa sàggan bis boo setee fayal yooya ba pare door a julli bi teew kon dem leen ngeen sangu jot a julli waaye tamit sa régal bi dagg nag nga mën caa jot a ne bàyyil kat man naan lawal bi wala bàyyil ma seetaan film bi door a dem sangu ji da ngay da nga bakkan nga topp da ngay fay waxtu woowa ndax amoon nga foko ko ndox mu ko mën a sangoo waa ngi fi waxtu waa ngi fi ya yaa ko def ci sa ci sa bakkan kon nag boo yoree janaba daal buy dagg rek gaawal nga dem sangu ci ndax loo xam ne boo ko yoree dafa lay sori waaye waaye kon boo setee gaawal nga dem sangu ci kon loolu lu jara lu jara lu jara lu jara baaxi xel la fa tëxëru na ngeen sangu buy dagg rek gaawal nga dem sangu ji moo ñu bëgg jigéen balaa tëdd na xool ak laabam bu ñu ne eh, regalam dagg na mbaa dereti gësinam dagg na mu dem sangu ji julli timis julli gexe ndax ci waxtoom la boo demee ba yeewu li ngay njëkk def tamit xoolal sa kanam ndax sa regal dagg naam daggut wala sa gësin bu daggee demal nga sangu ji julli julleeg suba bi loolu ñaari ñaari waxtu yi lañ bëgg jigéen di xool laabam balaa tëdd ak bu yeewoo ñaar yi nga xool ko ci lu la ci nekk rek nga mën koo xam su ko defee nag bu daggee sangul yàlla ne su fekkee da nga ne feebar ku feebar xam nga ne nag manta sangu boo feebaree nii indi feebar yi mën ngaa jëfandikoo ndox mi ci jàpp man ngaa mën ngaa gën a feebar rawatina médecin bi wax la ko mbaa nga xam ko ci sa bopp wala sax da tukki fa nga tukki mënoo am ndox wala ndox bi nga am même boo ko jàppee boo maree doo am loo naan lislaam dafa maandu kon day wax ne naanal ndox mi te nga tiim même boo àndoon ak bawkat muy ab xaj bu lay rëbbal nga yoreem ndox benn biron yow boo jàppee ndox mi xaj bi du am lum naan charia dafay wax na jëlal ndox mi nga jox ko xaj bi mu naan nga suqali borom bakkan da nga tiim lislaam ku bàyyi xel animaux yi la su ko defee nag nga dem tiim mu ne tamit aw jaa ahadun minkum minal ghaa'iti ghaa'it li mu doon tekki ci baatu luxa bi moo doon xuur fu suufe booba arab yi amuñu woon ay toilettes yu nekk ci seen biir kër buñ bëggaan a dem ngon ak rek dañu dem ci àll ba place yu suufee yi xam ne boo fa duggee kenn du seen lañ daan def ci place ba nag yàlla far tuddee ko place ba tuddee dara dara ca lam ko ñu far tuddee ko ko minal gaa iti waaye xoolal yàlla ni mënee odd wax ñëpp war koo roy mu ne aw laa mastumu nisaa bu ngeen laalee jigéen waaye namut ci laal ko ci sa lox rek waaye mi ngi namu bu ngeen amee rapport ak soxna yi waxul aw jaamatumu nisaa mais aw laamastumu nisaa ma ne wax wax dañ koy wardu waaye doo waxee ne na ma ko xamee rek laa koy waxee déedéet xoolal yàlla ni ma nee xoot wax mu ne wallaahu axrajakum min butuuni ummuhaatikum te ku ne xam ne ne génneewuñ foofa waaye fa ñu jaar tuddut ko ngir xoot wax kon wax noo ko gën a woddee mu gën a rafet moo tax mu ne aw laamastumu nisaa bi lii lépp amee nag fa lam tajidoo maa an te amu leen ndox yaa ngi ci tukki amoo ndox feebar nga am nga ndox waaye mënoo koo jëfandikoo wala sax mën nga koo jëfandikoo amoo ko dem nga wan ak amoo ndox kon kat utal rek loo mën a fompee sa gannaaw ak sa kanam ci ay xob na nga na nga bàyyi nag yuñ bind ay këyit yoo xam ne dañ ciy bind France sax bu ko def nga ñoŋeel làng wi langue yëpp langue yàlla lañ waaye tamit nga ñoŋeel bu ko def ci mburu mu waw bul ko def tamit ci lu ñuy lekk bul ko def ci loolu mu duna mën a gaañ loolu kenn du kenn du ko tàncoo boo defee ba mu set nag te amuloo ndox nag nga tiim jéem kon li lepp yalla ngoy wax ci ci walu julli ni ñu timé nak mu ne ñaari doori la door bu ñëk bi sa xarxaram ngay doori ni loxo bi ci ngay massa sa loxo bi yépp diko doré fi ba ci fi ba yex ci waat yépp nga massa ko ñaari ñaari ñaari doori la moo tax minu minu jóge ci ñaari doori lay delu yalla ne namuma leen xatal dama leena nama yaatal ma def lolu mom la wax mom la waxon ma jaarat ci motax wa in kuntum bu ngeen nekké junuban di way janabahu fa taharu fa tataharu la woon nangeen ngeen sangu wa in kuntum bu ngeen nekkee mardaa way feebar aw ala safarin mbaa ngeen nekk ñu tukki su boobaa nag aw jaa wala baxee koo ahadun kenn minkum ci yéen min al gaayiti ca wanag wa aw laamastum wala ngeen jonjoog nisaa a jigéen ña falam tajidoo te amuleen maa an ndox fa tayammamu na ngeen tiim ci lu ñuy tiim mu ne saidan na ngeen tiim ci pàkk moo xam yéen a ko fekk moo xam yéen a ko toxal ni nga mën a fekkee ndox jàpp ca ni nga mën a fekkee siif suuf suuf tamit nga tiim ca ni nga mën a toxalee ndox mi jàpp ca ni nga mën a toxalee suuf si nga tiim ca dama la andil ma suuf ma tiim man na mu ne kon fa tayammamu na ngeen tiim sa'idan ci pàkk tayiban bu teey nu ñuy tiimee mu ne famsahu na ngeen masaa bi wujuhikum seen i cëlmaay wa ay aydiyakum ak seen i loxo mbilhu ca ñaareelu dóorin ba maa yurid namut laahu yàlla léegi xala ngir na def alaykum ci yéen min harajin ci benn tiis tiis ولكن لي في نك يرد دفا نمو لي يطهركم غيرنا لابال لين سي بكار اك لابال لين سي تليم تليم ولي يتيم غيرنا ماتال نعمت وقي ولم عليكم سي ين لعلكم بستنين تشكرون نين سنت خيول يالله لي ني يال دفال سي خيول دفا بري لي لب اي خيول لا لي ني يالله ماي نانكوكو نانكوكو سنت واي تاي وون لو فيبر فيبر داغي جاب داغي هام بروبليم دي bu ne woon boo amee ay góom dangay jàpp da am problème waaye dem na ba yow mii sa loxo bi damm ñu palaatar ko sax yonent bi négligé wut sa àtte dañoo palaatar sa loxo bi mbaa ñu palaatar sa sa sa tànk bi yonent bi nee na jàppalal sallallahu alayhi wa sallam cër yi nga mën a jàppal boo ñëwee ba fi ñu palaatar nga masaa ci kawam masaa ba sax bu fa nekkee compilé di raaya raayaat masaa bu njëkk bi rek oyofal ko baax na ca waaye ne dama koy topp di ko tooyal ba mu tooy dafay yàq li ñu li ñu palaatar mu ne donte palaatar ba sax li ñu palaatar yëpp dammoo ko mën ngaa damm fii rek waa gi ñëw palaatar ko ba yegg si fii sa yoon bul raxas masaaxal lépp rek ci kaw loola nag palaatar boobu nag mooy sa njàpp mag ñi daan ko jame ne njàpp lu wadd ñu for ko yow nag boo ca masaa woon ba ne yaa ngay kàbbaar di julli rek mu mu mu mu summeeku njàpp la yàqu na boo kàbbaaroon julli yàqu na danga koy monté waat ba pare masaawaat ci kawam door a kàbbaaraat mag ñi ku mën a jàngale lañ ñu ne njàpp lu root ba pare borom for ko parce que mooy liñ palaatar bu watee da nga koo far ba pare dugalaat ko ci masaawaat ko door a door door a julli waaye bu la waxoon ne liñ palaatar na nga ko raxas da nga am problème buñ takkee boo amee góom nga gaañu palaataruñ ko boo mënee masaa ca kawam te lu la gaañ masaaxal ca kawam rek bu loolu lépp jafee lañ koy fajee takkee ko ko nga masaa ca kawam bu loolu lépp jafee lañ palaatar nga masaa ca kaw palaatar ba loolu lépp yàlla la ko defal ci ñetti ñetti ruux sa yooyu yépp boo ca man rek boobu mooy sa atte waaye lislaam bëggul nit ku compliqué di yeggale mbir yi fu mu yeggul loolu kenn du ko def soo ko defee rek indi problème dal dal na saxaabi yu benn saxaabi yu dafa yore janaba fekk na dañ ko gaañ ci xare bi blessé ko mu laaj benn moromam saxaabi yu ne ko waaw léegi léegi nooy war a def mu ne ko sangu rek mu sangu ba mu demee eh, yaram wa lug mu dee ñu ñëw yonent bi mer ne rey ngeen doomi jàmbur ji moo tax boo xamut buñ la laajee bul tontu xam nga ne kooku tey mu ne ko ray ngeen doomi jàmbur ji rek te loolu nga nga atte bi nga atte ko lislaam waxu ko kon lu gaañoo gaañoo ya metti nga mën a masaa ca kawam defal bu jàppandi wut yooyu yépp tiimal nga nga nga fas yéene jana ba ji jiita julli waaye ku yore gom yu ñu ne la sangul mu mullu da ngay dee yàlla tegu ko kenn kon gis nga yàlla ni muy daanee aayam yi moo lay daanee ba mu ne la'allakum tashkuruna wax ñu xéewal ak njàpp gim ñu may ak lam ñu jural wax ñu xéewal ak timit tiim gim ñu may ak lam ñu jural muy tudd nag yeneen xéewal yoo xam ne daf ñu ko defal moo tax lu ca tegu waskuru waskuru ni'matallahi alaykum xéewal yi dafa bëri xéewal yi nag lay lim nii niñ ci niñ ci war a sante yàlla moo tax alquran dafa nekk te dayoo toftale lépp a toftaloo moo tax mu ne waskuroo fàttaliku leen nicmatallaahi xéewali yàlla yi fàttaliku leen nicmatallaahi xéewal ak yàlla alaykum ci yéen wa miisaaqahu ak kóllëreem allafi kóllëre bi nga xam ne waasaqakum kóllërante na koog yéen bihi ci moom id qultum ba ngeen waxee ci aalamul arwaax ne samicnaa dégg nañ wa ataanaa topp nañ wala ba ngeen ñëw ci alamul ajjisaat waxoon waxoon waxoon yonantu bi ne ko sami'naa dégg nañ sa wax ji wa ata'naa topp nañ sa ndigal wattaq laa rek ta xamuñ sax ala sobi rabbikum joge lam ëmb motax bu ñëwee fi seen jëm ya sol rooxu ñu weddi lañ waxoon lu moo ko waral kon bokku ci sappé ñaarel ba bokku ba ci sappé ñettal ba waye ku bokku ci sappé ñentel ba boba rek yaqku nga waye tamit yéen a fasante woon nag yonent bi kóllëre mu leen di ngeen dégg ngeen wax ko ne ko li nga digle dañ ko def liñ téré dañ ko la nga téré dañ ko bayyi kon timi lolu na ngeen ci sax bu leen ko bayyi ay ji ci teggu mu yaay wàllif na amunu kunu xawaamina lillahi dafay wane ne yéen doom aadama yo ñaari mission dong ngeen am ñaari mission moo tax tamit ma indi leen fi bëgg ngeen rempli ko xàq ji dox ci seen digganteeg seen borom ak àq ji dox ci seen digganteeg seen morom xawaamina lillahi mooy àq ji dox seen digganteeg seen borom suhadaa mooy xàq ji dox seen digganteeg seen borom xàq ji dox seen digganteeg seen borom nag ci xawaamina mooy wéetal ko julli xoor joxe asaka def santaane yi bahi tere yi waaye suhadaa bil xisti nag mooy àq bi dox sa digganteeg sa morom la gën a néew ci li nga ko yoreel mooy seedeel ko dëgg bu dëgg jotee nga waxal ko ko donte sa noon la loo bañ bañ nit ki ak loo ko noonoo noonoo xam ne lii dëgg la fu ko waxalee lu dul dëgg tamit nga défendre ko loolu bu ko tuddee nag namu na ci mbooleem xoqoo ñu dox suñu digganteeg suñu morom lu ngeen fasante kóllëre ci def lu ngeen fasante kóllëre ci bàyyi yaa leb demal fay nangam ak nangam bu ko jëw bu ko fenal bu ko sosal yépp nga def ko suhada bil qisti kon loolu lay bàyyi moo tax Haaruna Rashid dafa mos a dajeeg benn dof ku ñuy wax dof ab dof la bëgg loolu Haaruna Rashid nag di di ko laaj ne ko ndax xam nga man maay kan mu ne ko waaw xam naa la de yow yaay koo xam ne yow la yàlla tey gàcci loosu jullit ñëpp ngay seen kilifa yaay koo xam ne tey bu benn jullit nekkoon ca masriq fi jant bi du fenkee yow nga nekk ca maghrib ñu tooñ ko wallaahi bala ngaa jéggi siraat yàlla laaj la ko Haruna Rashid jooy fekk jooy dëgg moo tax jiite nit ñi yombul de responsabilité bu rëy rëy la dox baa ko waxoon ne ko nekkewoo fi dara loo fi nexee lu dul rafaxta tiina wa waddaxta diina léegi lu dul yëkkati ciment yi rek tabax ay immeuble yu dul jeex daane diine rafaxta tiina wa wadaxta diina lii rek nga fi neexee moo tax léeg-léeg yàlla kàddoom mu yónni ko dof mu ñëw wax la ko doo ci man dara léeg-léeg mu yónni ko xale léeg-léeg mu yónni ko jigéen ay message am la te doo ci man dara mu wax la ko sa xol bi dagg waaye nga xam ne dëgg la xam nga ne kon dof boobu du dof ku mën a taxaw ak buur wax ko kàddu yu dëggoo nii bu leen ni ngi jàppee dof tamit doo dof moo tax sama borom ne yaa ayyuhal lazina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gën nañu alquran koonoo nekk leen xawaamina di way taxawee lillaay ci xaq yàlla yépp suhadaa ngeen di way seede laa wax seede goo xam ne dafay lalu bil xisti ci maandu wala yajrimannakum bu mu leen togg mukk sanaanu qawmin mbañee law nit allah allah taadiloo wali seen ak maandu da nga koy taawil masdar yaxdiloo maandu leen koo moom maandu daal aqrabu moo gën a jege li taqwaa ci ragal yàlla wattaqu na ngeen ragal laaha yàlla inna laaha naka yàlla xabirun ku dañ kumpa la bi maa taxu leen xam yéen a koy def de kon gis nga maandu moo gën a jege ci ragal yàlla wax wu jaxam la ragal yàlla jëfi baatin la ci xol lay ne maandu jëfi biti la li nekk ci sa xol nag ci ak ragal yàlla li ko gën a gaaw ci mën koo feeñal mooy san maandu boo waxee rek dañ xam ne yow ku maandu nga muy feeñ ragal yàlla gi nekk sa xol soo waxee rek dañ xam ne yow ku maandu xadi nga muy tekki ñeme yàlla gu nekk ci sa xol boo jëfee tamit dañ xam na yow ku maandu xadi nga kon daal maandu ak ragal yàlla ay séex lañu boo ca yore yore beneen ba foo seede leen ki nekk ak maandu bala ngaa daane boo xeebee tofal ke ne ko ak ragal yàlla koo seedeel ne ku ragal yàlla la balaa kàddu gaa daanu neel ku maandu la kon maandu ak ragal yàlla maandu jëfi baatin la ci biir la ne adlu jëfi saahir la waaye jëfi baatin gi nekk ci sa biir jëfi jëfi saahir ji moo koy feeñal mooy maandu maanaam maandu mooy feeñal ragal yàlla loolu la bëgg a wax maandu mooy feeñal ragal yàlla ragal yàlla gi nekk ci yow daal boo maandoo ki sa digganteeg say soxna maandu digganteek say bokk maandu digganteeg say sa sa njaboot maandu sa digganteeg say dëkkandoor maandu ñu la yàlla gàtt say sa loos nga jiite wallahi ku ragal yàlla nga ci sa xol ah, abubakar ah, maanaam attaqwa haahuna jooje mu doon junji su boobaa mi ngi ci yow waaye ku maandu xadi ku ñeme yàlla nga doon te nag ki jar a ragal mooy ki jar a ragal ci kaw suuf kenn la mooy ku ñeme yàlla ku ñeme yàlla rek jar a ragal ku ñeme yàlla ragal ko ndax ku ñeme ki ñëpp ki ku ñeme ku ñeme maanaam ki ñu waroon a ragal kooku jar ngaa ragal ku ragal ku maanaam ku ñeme kuy ragal war laa ragal moo tax booy ragal ragalal ku ñeme yàlla léegi nag yàlla tofal ca ne waadalaahu alladina amanu wa amilu saalihaat mu ne man yàlla dëxal naa ñi jëf-jëf ju baax ba dee ca mu xasaf lam ju dëxal mooy wax wax waxdan xasanan mooy dëxal gu rafet mu def nag istinaaf ne waaye tamit du leen ci daa leen buuñaa bu yowmal qiyaamee ma jéggal leen seeni i bàkkaar jox leen payoor bu rëy moo tax boo boo jëlee maanaam lahum maghfiratun wa ajrun azim istinaaf la mun loolu danañu ko defal moom lay wax si nii moo tax sama borom ne waada dëxal nañ laahu yàlla lazina ña nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla wa amiloo ñu sax dàkk di jëf saalihaati farataaki naafila yi lan lam ñu dëxal mu xasaf ko waaye lahum aji nekk la ñaan leen maxfiratun njéggal wa ajrun ak payoor azimun bu màgg xéeféer yi nag mu ne wala si la nga xam ne kafaroo ñoom dañoo weddi wa kazzaboo ñi fenloo bi ayat naa suñ kaawteef yi ulaayka yooya gaay asxaabul jahim ñooy mboolam safara de fa la ñu sax seen mbir jeex yaay wala si amul skuru ni'matallahi alaykum yàlla ñuy fàttali jullit ñi xéewal yu rëy yi ñu defal bokk na ca xaswatu xudaybiya li doon bëgg-bëgg saxaba yi mooy ànd ak yonantu bi dem umra ji dugg makka yalla ne namu ngeen màkk bëgg faa dem juróom benn xata ngeen demu leen fa mais dem gi gënut ci yeen da ngeen fa fekk ay kàccoor ñu am doole te amagu leen doole ju ngeen leen amagu leen mësuru te bu ngeen leen mën a dékkoo bu ngeen demoon ñu tàppaas leen xeex ak yeen dañ leen di maasale yem leen fii rek ngeen lot seen hadiye yi te delluwaat ma bindal leen ko yoolab ku umra fekk umra woon nañ ah, ba jàpp ne dañoo umra ji namu nañ màkka te fekk yonent bi waxoon ne ne gént naa ngeen dugg ngeen dugg màkka wër kaaba ga da tadxuluna al ne ko nag yaa ñu ko waxoon moom danga mu ne maa leen waxoon ren waxuma leen woon ren ma leen wax moom faw nam leen ko waxee ko ñu demee ba waajaat fatxu màkka te ñëw am nañ majorité boo xam ne kenn mënu koo dégg keroog ba yonent bi taxawee sulu xulayfa biiru ali xarmal ànd ak juróom-ñaar fukki junney soldaar ba mu ne la bayka allahuma la bayka seen kàddu ya waa asamaan ñu ngi ko doon dégg boo ñu bañ demee rek la mu keroog nag keroog ba ñu duggee mbooloo moomu màkka ci la yàlla ne al yawma ya'isa allazina kafaru min diinikum saw taxshawhum waxshawni xéeféer yi da naago nañu yéen def leen murtati waaye li ngeen tuuba ak gàddaa yeeg xare badar ak uxut ak yépp taxuñu woon ñu tekki seen ngemb yi dañu foog da ngeen mos a ñëw fekk si leen waaye keroog ba ngeen ñëwee fatu ak mbooloo mi xam ne di saye mëntuñ ci yéen dara al yawma ya'isa llaziina kafaru min diinikum kon falaa taxshawhum waxshawni kon yàlla lu dogal ci yow billaahi bu la ko wanoon nga ne ko dolli ko ak nu mu mën a mel ndax wallaahu a'lamu wa antum laa ta'lamuuna yàlla ki xam moo tax boo bëggee nopp lu yàlla dogal gërëmal bo xam ak nga ñàkk xam lépp bu la ko wanoon rek da nga xam ne billahi yow yàlla daal su ma yëgoon nga dolli ko yàlla hakim la soo ko doon misaal day mel ni tëwér bi soo xottee sa basin bi mu seer lool nga dem jox ko tëwér bi mu jël siso bi rek di xotti rek boo xamul fu muy mujj da ngeen xeex waaye boo boo muñee tuuti may ko ay fan boo ñëwee mu ne la ah ñaw bi kan mën ngaa ñëw jël si ko boo ko ñëw boo ko boo ko solee rek kontaan kon yàlla tamit mbiram yépp noonu la mel ci ñun lepp dafa ñu defaral rek la ñu defaral bu sotte ba mu ko rek ñu ne ko jaa jëf yow yàlla yàlla nag ne maa leen defaral hudaybiya bëggoon ngeen a ñëw waaye wallahi su ma leen bàyyi woon du baax ci yéen ci la yonentu bi yónni ambassadeur ba sayidina Ousmane mu dem wax ak ñoom seytaan ne rey nañu Ousmane yonentu bi naa ah ñëw moon ngir xeex mais ndawal buur fu ñu ko reyee xeex mën ta ñàkk fu ñu reyee ambassadeur foog ñu xeex ci la jël benn loxom bi muy ndajor mu représenté boppam beneen loxo bi représenté sayidina Ousmane mu ne ñëw leen ci jaayante gi foofa nag la leen di tudd ne hit xéeféer yi seen hitte li ñu laloon ci plan mooy bu ngeen ñëwee rek ñu maasale leen mais man maa protéger seen loxo ya ba daluñ seen kaw ma idhamma qawman an yabsutu ilaykum aydiyahum kon loolu ba bàyyi maa leen ko defal waaye loolu tamit lu bëri la defal na ko suñ kilifa gi yonent bi daan na ay saxaabaam benn xare bu ñu tuddee zaatu imirin benn xéeféer bu ñu tuddee xaw xawrasu jël jaaseem ja sax lañ wax moom la jël fekk yonent am na fu mu ko wékk mu bot ci taxaw jaas gi ne kan moo tere tey ma faat la yonentu buñ ko rayee rek ray nañu ñun ñëpp mu jël damir ji éegal ñu ko ñun ñëpp mu ne ko yàlla ñu nañ gis daal jibri la ko cojjal jaasi ji ci ko yonentu bi jëlaat jaasi gi ne ko ku teree ma ray la mu ne ko nga gën ma rek mu ne ko demal jéggal naa la ku jekku jekkal la waaye du jekku jekkal yi mukk kooku mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla wax si nii mu ne yaa ayyuha alladina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm nañu alquran uzkuru fàttaliku leen ni'matalaahi xéewal ak yàlla alaykum ci yéen id hamma ba hittewoo qawmun nit an yabsitoo ñu tàllal ilaykum jëm ci yéen ay di yoom seen loxo ya waaye fakka fa feg na moom yàlla fegal feg na ay di yoom seen loxo ya fa maanaam ma leen ko fegal xan ko walis leen wattaqu na ngeen ragal laaxa yàlla ci wuuteeg ndigalam waxala laay ci yàlla donn fale ta wakkal na ci sukkandiku al al muminuna way gëm ña kuy sukkandiku sukkandikul ci yàlla koo sukkandiku ku dul yàlla bis dana jot mu daanu daane xale la wa man yatawakkal ala allaahi fa huwa xasbuhu fa tawakkal ala al hayy alladhi la yamut kuy sukkandiko da ngay sukkandiko ci kudul dee waaye boo ñàkkee fayda ne diw de moma yoré yore sa lepp nga gatch ko ko yalla bàyyi laag moom lay toroxal rek te dula la mënal dara yag yag ngeen mujj rek ko waye bo ne ko nak fa nga wër sa bop fa la bëgg wëru nga am jàmm motax tax toog gis ben ben wajur naan señ bi ñaanal sama doon ji mom la yaakar dama lay yërëm dama ne waaye ba avant ngay xam sa doom ji koo yaakaaroon duutoon yàlla wala doom di rëy nga am naan ñaanal ma sama baay man la yaakaar ma ne sa baay yéex na laa yaakaar di ba nga juddoo ko ko ku ko yore woon kon nañ jël suñu lépp jox ko yàlla ku ko def am jàmm xam naa nag ñu ngi may signal ni waxtu bi jeex na tombé xisa bi jeex xam naa nag euh, tolleeg tamit ñu war a tëj tafsir bi fii tay nag yeewal ko ñu noté ne bu ñu fi yàlla indiwaatee ci kartanam wala qad axada allahu mithaqa bani israila dañuy war a déparé sëñ Abdoulahat sëñ Abdoul Aziz ñi nga xam ñoo koy takk ngeen takk ko rek ñu bind ko yàlla nañu fi yàlla indiwaat te fekk ñun ñëpp bu kenn manqué ñun ñëpp ànd ak wér ñun ñëpp ànd ak dolleeku ñun ñëpp ànd ak xéewal ñun ñëpp ànd ak wërsëg ñun ñëpp ànd ak ubbeeku yàlla mën na ko borom kër gi ñu may occasion ñi addu ngeen di dégg fu ngeen mënu nekk ci juróomi continent yi ci àdduna bi yàlla na yàlla yokku leeram yàlla na yàlla sëmbërtal ci kawam niiru ngërmande sëmbërtal ci kawam niiru yërmande mbooleem xarafi alquran yi ñu fi jàng yëpp yàlla na ko yàlla soppi aw yiw sotti ko ci kawam yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def te yàlla aaral ko njabootam gi yàlla téewal fajiri ba mu gën a dem ca kanam bu ko dara sooke yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla ko yàlla def euh, kooku liñ ci yàq bëri na yàlla nañu ko yàlla jéggal liñ ci na yàlla nañu ko yàlla xamal ubbi dënn yi ubbi xel yi ba yàlla may ñu ci loo xam ne kawe na suñ jot ci lépp ñu ngi sant ñi nga xam ne nag bi ñu tàmbalee ba léegi dëgg la ñu ci jamonoy corona bi xat na nit ñëpp war a tegu ci seen kër yi waaye ñoom ñu ñëw rek huutu fi mbooloo mi bët bu set rek ñu ñëw ànd ak ñun kon ñooñu tamit ñu ngi di sant jiital ci tabaarakalaaw alaaji Mali Njaay mi nga xam ne mooy mooy bàyyi daara ji jiite lépp tabaarakalaaw sëñ ah, Haji Keeba Njaay di lépp ci kër gi moom tamit dagg yitteem ñëw tabarakallah seigne mam as bàyyi ko ba amerique di borom xam-xam mom timit mi ngi fi seigne abdullah diouf di borom xam-xam di conférencier mom timit mi ngi fi ñes mom mu seigne Baye Ibu Sakho suma ko gisee sama xel daj suñu xarit ba Haji Iliman saho mom timit mi ngi fi teewal fi waa Baye Ibu Sakho yeb alim fay tabarakallah duwan ku baax mom timit ñewna fekke ci tafsir bi Ibrahima Diallo maa ngi ko fi gis serigne Mohsin Niass Euh, di kilifa gu baax moom tamit woyof lool bàyyi ko barki démb Amérique moom tamit ñu ngi koy sant di ko gërëm ci teewaayam te tabaarakallah al ustaas al ustaasul kabir Mouhamed Jamaka docteur Jamaka sax laa koy tuddee ndax mi ngi def doctorat am ci maam Khalifa Niass gannaaw bi mu defee mastam master dërëm ci maam xalifa mu ngi def doctorat bi kon tamit yàlla na ko ci yàlla may ndam ci ni mu ko bëggee muy borom xam-xam yéen a ngi koy dégg avant may def tafsir mu leen di ci firi moo xam ne ci waxtaan woo xam ne wa am am solo la si ahmed tidiane Padan maa ngi ko ciy gis aliou ndaw moom tamit tabarakallahu aliou cham waaye ko ba kër massa ibrahima diallo malik ndiaye tay ñi fi nekk ñëpp naa leen a lim daanaka eh, ñëpp ngi fi mbokku male toog fi sees bi ah sama xarit ah moom timi mi ngi fi teew ah, suñu xarit tabarakallahu sëriñ aliou sàlla suñ doom suñ at mu jot daana ñëw di ñu wettali moom tamit ci tafsir bi mi ngi ñew timit fekke ci ko mbokk mi tok ci sées ba serigne kebe mon tamit bayiko ko ba Caaroy Abdoulaye Gaajo timit nga xamne mo ñu jàppale sa yu ñu ñew rek mu yi tem andi ñu ñu koy sant ñu ngi gëreem ñu fi teew ñep yalla yalla defal ñu tawfiq ak salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jotaayu tafsir ak oustaz Hadi Niass bes bu jot ci waxtu wi. librairie papeterie Daradi les lu même sortent.